prestation am na parce que da nga naan am na ci beneen forme mooy que leader yi jotuñu cee fan la amee kon ah mais place de la nation mais xale yi génn nañ ci mbedd bi yow gisoo yenn image loolu manifestation ah, loolu kay manifestation ndax xale yi <laughs> génn nañ yuuxu génn nañ yuuxu policier tamit daal di riposte taal ay lacrymogène ak yooyu waaw léegi xale bu génn ci benn ko jak taal pën encore waa Colobane également ñu taal fa ay lacrymogène taal fa yeneen ak yeneen Ahmed Aïdara moo leen ko sant non non waxuma Ahmed Aïdara mais il fait partie quand même euh, de la coalition de la dite coalition bi nga xamante ni ñoom ñoo initié woon euh, bi lépp manifestation mhm. du dëgg léegi po gis nga point boobu d'accord ci point boobu bàyyi ma indi la beneen point. Euh, xam nga yoon lu mu wax. Hmm. article 96 code pénal man lu mu lay wax ay article loi laa lay tudd. ku ko bëgg a wedde da ngay indi loi teg. article 96 code pénal dafa ne. takk der yi bu ñu fekkee ay nit ci bërëbu manifestation. bu fekkente ne manifestation bi yoon mayu leen ko takk der yi ñu ñëw rek jàpp leen dañuy joxe dañuy njëkk a dóor sommation bu dee guddi la da ngay def ay. signal lumineux bu dee bëccëg la nga utiliser haut-parleur wax ak ñoom ne leen manifestation bi yoon mooy leen ngeen def lii tas leen dispersez-vous suñu bañee nga dóor deuxième sommation suñu bañee nga soog a procéder à des arrestations est-ce que sommation cest bu doon manifestation bi am na ba ñu fekk fa leader yi ñu jàpp ñoom Ahmed Aidara ak ñoom Mame Diarra Fam même bu bu manifestation bi amoon ba ñu fekkoon leen fa loolu la policiers yi waroon def dóor deux sommations suñu bañee disperser wu ñu soog def leneen même bu ñu leen fa fekkoon ba manifestation bi am noonu la waroon demee asamaak nag ba jàppee leen ci barab bi te manifestation bi mais tamit en tout état de cause bu ñu fekkoon génnuñu sax seen kër yi peut-être xam nag mbir yi doon na gën a bi wu ko ku ci nekk jubo nga toog sa kër tranquillement woote jàmm ci dëkk bi moo gën tamit ku ci nekk nga bëgg génn bëgg bluffé tamit yëfi dóor yooyu comme soo ko yow doon defee affaire dóor yooyu damay julli ak pour gars yi mën a wax ci moom xam nga yaa ngi naan manifestation bi autorisé ko mais lay laaj hmm. nañ ma génneel Sénégal loi buy wax ni ku bëgg def ñaxtu danga war a am autorisation loolu bu ñu ko réglé rek question bi jeex xam nga da nga ne manifest manifestation non autorisée la léegi nañu génnee loi Sénégal buy wax ni képp ku bëgg manifestation da war a am autorisation waaw mais bu dee amul loi ani kon lan a la wala wala même même article 96 bi ma la doon wax réglé na ko boo demee ci article bi xam nga lu wax moo autorisation doo ko fa dégg moo déclaration nga fay dégg dafa ne yoon dafa ne képp ko ba dem manifestation li nga war def mooy da nga ko war a yëgal préfet mu jël ay mesures su teelee ba teel 15 jours avant manifestation bi bu yéexee ba yéex ñetti fan. avant manifestation yëgal daal lañu ñëw kon daal ba tey rek loolu yëpp. bu fekkee loolu yëpp na mais xaaral loolu yëpp loi moo ko tëral ba tëral si ab article bi nga xamante moom moo koy stipulé kon day wane rek yoon loolu daal na koy daganal quand même. xam nga xam nga gis nga bu ñu tënkoo ci bu ñu tënkoo ci loi ak texte yi duñu am problème. Mm. article 96 code pénal dafa ne. Mm. képp ku bëgg manifestation déclaration nga a def léegi waa bëgg manifestation foog am autorisation na nga ko pouvoir bi génnee rek problème bi jeex mais dama ni même su fekkee ni génnewuñ li nga xamante mooy li nga wax nii amul autorisation bi nga xamante amul c'est-à-dire xaati muñu loi bi nga xamante moom mooy xam leen da war a bind ab demande waaw koy jébal ki nga xamante moo di préfet waaw ngir de ce fait déclaration yëgle de ce fait euh, sa manifestation ñu ñëw encadré ko mhm. indi ko takkatere sa war du mhm. loolu nga wax kon kay loolu yoon waa léegi dafa ne da nga yëgle rek. mais waxul ne foofu par faw nga am. autorisation yëgle daal moog autorisation yëpp a yem nag. déedéet moom li ma bëgg mooy. parce que ma la yëgalee ni la damaa bëgg génn fii c'est parce que damaa bëgg a jox ma ci ndëggal. déedéet bokkul ah régime déclaratif ak régime d'autorisation bokkul ñiy wax pour tëll gis nga gis nga moo tax coow li dafa bari rek waaye ñun ñëpp buñ tënkoo tënkoo ci texte yi bu buñ tënkootee moo tax bëggoon naa fi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy justifier arrestation yi ni hmm. ñi daganal arrestation Mame Diarra Fam yooyu bëggoon naa toog ak ñoom fii laaj bu gàtt laa leen di daaj génneel ma Sénégal loi buy wax ni ku bëgg marche da nga war am autorisation nañ génnee loi bi teg ko mu jeex buñ ko génnee teg rek problème bi réglé wu hmm. bu ñu génnee loi loolu moom maa ngi défier APR même ñi nga xamante ñoom ñoo leen jàpp sax nañu génnee Sénégal loi buy wax ni ku bëgg manifester da war ma a bind pour yëgal préfet pour mu daal di lay li nga xamante moom mooy sama ma yëpp ñëw toog jàkkaarloo waaw d'accord mais ginnaaw Ahmed Aïdara tey ji eh, Birame Seck moom li mu ko digal noonu jàpp nga ni loolee moom war na ko war a mun a wax que ni Ahmed dafa war a porter plainte ñëpp ni nga xam nga ndeysaan euh, la weesu tribunal militaire mooy fa ñuy atte takk der yi dama fa dama dama benn audience hmm. benn chef bu fa indi benn élément am di ko di ko parce que élément bi da ko dafa menacé porte chef am ne ko dama lay porter plainte waa ji porter ko hmm. c'est un gradé de mu porte plainte benn benn benn euh, booyam xamante ni hmm. euh, daf ko ni yow chef la porter ba ñëwee xam nga juge bi lan la wax waaje chef boobu noonu uh-huh. dafa ni ko uh-huh. menacer nit di danaa la porte plainte loolu du délit uh-huh. porte plainte loolu droit la boo xam ne benn citoyen kii dafa ne ko chef bi kii dafa la wax rek droit boo xam ne yoon moo ko may loolu la taxaw la wax mais li mu digal ñoom Ahmed Aïdara mais loolu loi moo ko may ku ñu tooñ mën ngaa dem kalaame ko ci yoon porte plainte bu ci seen te ma leen di yëgal nag de Sénégal bu ñu la tooñee bu la neexee nga dem cour de justice de la CEDEAO bu la neexee sax surtout les meurtres sans coupable la bu la neexee ñu dem cour pénale internationale xam nga ñu ñuy jiite loolu lañ xamul bés bu ñu demee ba wàcc ñoom ñëpp mën nañ leen yóbbu cour pénale internationale jugé leen surtout rey yi nga xam ne les meurtres sans coupable xam nga cour pénale internationale moom yooyu rek lay àtte lu jëm ci wàllum rey ak yu ni mel kon daal jar a yow bu gën a fort boobu sax nga koy déggal nag far yàlla donc euh, ba tey ci wàllu arrestation yu ñeel euh, manifestation bu 17 juin bi ñu weesu mhm. euh, ñoom maam jaar jaar femme ak i Déthié ñoom également ñu teg leen loxo gis nga keroog les femmes du PRP di parti bu Déthié mhm. def nañ ci sorti ñoom nañu ngi sàkku à que ñu bàyyi seen leader Déthié ci nu mu gën a gaawee Ousmane Sonko moom daal di ci toftal ni li ñu bëgg rek moo di daal di salfaañe bu baax a baax seen ak ak yelleef mu ñeel li nga xamante ni moom lañ tënk ci article 34 2024 ne de ce fait ñu inéligible ci élection législative ñu dëgmal atum 2022 bi ñu nekk. waaw euh, bu fekkente ni objectif pouvoir bi mooy tere Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Déthié Fall ak ak sax euh, beneen kii Cheikh Bara bu fekkente ne mm-hmm. tere leen ñu bokk élection yi moom la ci pouvoir bi bëgg mm-hmm. nañu xam ne c'est peine perdue lu tax élection législative yi li ci des matatul sax deux mois mm-hmm. mën naa ne un mois et quelques moo ci des balaa ñu lay mën a xañ nga bokk ci élection il faut que la condamnation soit définitive maanaam ñu jot jaar ñetti état bu procès yëpp xam nga mën nañ leen atte setal leen. su boobaa kenn du leen mën a tere euh, même bu ñu leen condamné déclaré coupable Ahmed Aïdara. Hmm. Mame a Fam Déthié Fall même bu ñu leen condamné. terewul leen bu terewul mën nañ bokk ci élection législative moo tax Ousmane wax loolu wax ji lépp waaw waaw waaw cest foofu laay ñëw pour leeral c'est-à-dire que pouvoir li mu bëgg loolu la comme comme ni ko Ousmane li ñu bëgg mooy foqati mairie bi rek lañ bëgg foqali mairie mairie Barthélemy Dias. ak mairie mais pouvoir su ko leeree ni ko moom mi nga xamante ni yow nee nga moo xaatim loi moom mi nga xamante ni nee moom mooy décider jamono jile pouvoir bi rek moom mooy décider li nga xamante moo war a tukkee. Mhm. ci lu ñel suñu justice bu ko leeree ni peut-être euh, li nga wax ni ñoom euh, mënuñoo salfaañi seen ak yéen ba ba tere leen bokk ci élection yi euh, kon amul sens. waaw xam nga loolu mën a nekk. c'est-à-dire ñoom dañu yaakaar ne lépp lu ñu mën a am bépp lépp nañ jaare ci justice te parents muy doxee par exemple ci biir justice am na ci ah, ay pièges yoo xam dafa mel ni dossier Ousmane Sonko bi gis nga tey jii nii ñoom ñi nga wax ne ñoom ñooy xaatimi yoon ba pare nga ñëwaat ne ñoom xamuñu ni déglul ma expliqué la gis nga Ousmane Sonko tey bu ñu taxawoon ni dañ koy atte ci hmm. dossier Sweet Beauté mook Adji Sarr hmm. avocat yi am na beneen yoon bu leen may boo xam ne day bloqué procès bi day bloqué procès bi ba loolee sotti loolu mën na nekk bés bu ñu taxaw ne dañuy atte Ousmane Sonko xam nga pouvoir bi loolu objectif bi atte la def la comme Karim Wade ak Khalifa Sall pour nga bañ a bokk ci élection mais avocat Ousmane Sonko yoon may na leen ñu jaar benn procédure boo xam ne dañuy bloquer procès bi xam ne <laughs> fi ñu toll nii sax nga xam ne mënaguñu wax sax leer na leen ni lii ab complot la. loolu loolu moom yoon moo ñu koy leeral bu ñu demee ba ca man gisuma dara man man du ma xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma dara ki droit mais tey ji bu a gis preuve mais preuve yi wane ni complot la ah, yëpp ci table bi di ban preuve da nga ci table bi mais preuve bëri na ah, kenn déggoo ñi nga xamante ni jot nañoo wax jëf kenn ak ñi ñu fi kenn ku ci nekk génn wax yow da nga ma bëgg dugalaat ci dossier suite ba tey boo moom man ay menace de mort taxul ma taxul ma arrière taxul ma la boo ma dugaraate ci dossier Sweet Beauté boo bëggee ñu wax ci léegi faram fàccewaat ci waa cofaat ci tuuti waaw dossier Sweet Beauté a yeggali dossier Sweet Beauté li ma la ciy wax pend lenn la mm. wax ci sax fi ñu toll nii yàq sa salive la non man complot bi nga waxaat ni kay taxaw sa sa fi nga dëgër lool noonu ma ne la preuve yi wane ni lii ab complot la yëpp xam nga xam nga bi njëkk sax problème bi njëkk am mooy mm. euh, du déggoon ñu ne la dañu bëgg par force dañuy seetal Ousmane Sonko. xam nga waxoon naa la fii ne la gisuma